ana Pape Sarr dégg naa ne ci loo nekk. waaw. waaw. waaw dañuy sant yàlla bu baax sant suñu ñaari waajur ñaan Sénégal jàmm yàgg fi yoo xam ne bés bi ñu tëgmal muy bisu tabaski yàlla bu ci benn borom kër jaxal ci barke maam Cheikh Fall ñu santaan yàlla bu baax ñu nuyu suñu waa dëkk waa Diourbel di nuyu képp ku fi teew ñu nuyu suñu bàyyi toog ñu santaan yàlla bu baax xam ne làmb kaf ak la may wax suñu rax mbër yi fi nekk que stade bi ñun ñoo ko moom bu ñu yàq bu ñu salteel képp kuñ ci woo yàq sa naata nga ngeen taxaw jëfante xam nga li nga xam moo war seen diggante pare amul yàq amul saxaaja ñëfa saxaaja du saxaaja ñoom moom suñu alal nañ ko sàmm ci barke Cheikh Fall di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam may woo waa Géejawaay waa Diourbel ak waa ginnaaw raay waa Manko maa ngi di woo bu baax kon Manko ginnaaw raay président Djibi fay xam nga yow yàgg nga taxaw yow duma sant duma la suma papa nga suma lépp nga may nuyu ma àndal muy borom daaru ak Vieux Kane di ñaanal suma rakk dafay guy bi Siteu yàlla may leen dem marre a géejawaay xam nga yàlla suñu borom dafa leen dem Pape Thiam maa ngi siyaar di wax ne maa ngi jégalu bu baax a baax a baax xam nga yàlla na yàlla suñu borom def jàmm yàlla jàmm yàgg Sénégal di woo sama mbokku page a yëpp sala Sëriñ Fall sala bëggee lu muy Sëriñ Fall bëgg ma barke maa ngi sóobu le jour bi incha allah barke Sëriñ Fall di nga xam ne am nga combat waaye loolu barke nga xam ne am nga Babou Ndiaye wàccal wàccal comme moom lañ tuddee drapeau bi sama juumul nga def jour ji le 25 juillet dañ wax le 25 juillet. le 25 juillet ma waxal la le jour ji parti Serap Fall bi nga xam ne am nga combat ay jàmm dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dagaan bu baax a baax yàlla suñu borom may ñu ndam mais le jour ji kenn du ñu jëpp kenn du xool ni accam ndam nag yàllaa ko yor dañ koy saako bu baax di ñaanal ñëpp am jàmm yàlla na borom ko rek am xar. ci barke Serigne Fall damay kontaan dimanche incha allah maa ngi woo Sénégal yëpp. waxal fii. bisimilah salaamaaleykum. mbokk yi maa ngi nuyu di leen ziar yéen ñëpp. képp ku fi teew Calme Ndour moo lay nuyu di la jaajëfal di la jox sa wàccuwaay bu baax. di nuyu waa kër Soxna Saad bu baax di nuyu suñu xalifa seen ayax du Cheikh Talib bu bu Soxna Saad bi Moussa Mohamed Fadel. maa ngi nuyu bokk tariqa yu nekk Sénégal yëpp di nuyu sama sëñ Cheikh Sidi Xayr du Cheikh bu na na doomu Cheikh Talib bu ya doomu Soxna Saad bu di nuyu ay rakam comme Seydou Aliou ñoom Seydou Ba Cheikh Bounane maa ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama mbokku séeréer yi foog rek séeréer mais siñu mi grand mbañik oppi nu andit nu xarit nu ajo combat il faut amul seen junior mais sakkuwaana foog ñaan moi séeréer a ref na mi grand mbañik ne talala ma bay sakkuwaana wo ñaan leela lu nekk rap drapeau bi drapeau bi am na borom kaay kaay waay kaay kaay waay kaay ma ngi ñu tuddee drapeau bi drapeau bi am na borom kaay kaay kaay kaay kaay kaay kaay ñu ne moom xaritam la tuddee drapeau bi waaye nag moom a yebal wala orof Njaay di wax xarit bi la gën doomu nday muy Baba Njaay te laanu rek drapeau séeréer sikum meege ko kullu séeréer no nga jeg na me combat mais sakku war na ñam Ibu Njaay tool bu zap ne ko rel mais da nga fop jam laanu séeréer séeréer ko inoon ndam tay laanu no drapeau no ngi sikum te de kan lay kan may li ma koy wax kii amul lu ma koy jox cër barke Cheikh Sadou Abdou kii maa ko mën maa ko ëpp doole jour wala ma koy manqué respect humilier ko daan ko fi ñibbi sama suñu waa def fii jóge dafa sori ba li ma jaar fii di lewee toog moom kémal suba aw ma jotam yaa dañuy dugg saret dugg gaal dugg oto door ak si fii ñun géejawaay la ñibbi kon yabul ma samay sifalwa am naa jot boo xam dinaa ne kii di lewee toog kémal suba man du ma bursi moppi du ma du ma ñooñu man bu abbi sifflé may taal sa ma lu may xalaat si la leer muy sa jàmm am naa combat aw ma combat loolu yow la concerne mais besoin man damay dal ca kaw man aw ma lu may xalaat si bu la leer muy sa jàmm voilà waaw incha allah bu soobee yàlla yéen a bis dafay dal su ñuy daje yow pam si suuf la lay fekk. saa sa wax dama lay déglu déglu ma pam bi nga wax si suuf la lay man du ma la am ma lay may. bàyyi sa parole di ngay rafetoo eh, ma lay may fils. bàyyi sa parole ma lay may. maa na am naa ko mais dama lay tànn. soo ko bañ a dégg tànn yaa sa dënn. a déggoo lu ma la xanaa ban ban ma si jalaan ma wax déggoo ma ban ma si ma dégg ma wax nga koy teg yow lan nga kullu nafsin saa'iqatul mawt voilà ku ne dañ koy suuf dëgg sax dama lay tànn fii loolu amul ay dañ lay suuf voilà man sama melokaan bi ay tax na changé ko man li may wax mu ko tegi li ma lay mun wax mooy barki Modou Baye Djily Fall am nga combat bul woon ay sawaay xoolal ay am nga combat loolu soo ko bañee dégg soo ko bañee dégg combat bi taxaw na am naa ko dama lay wax loolu ngay bañ a dégg ndam yàllaa ko yor waa Kër Masar yóbbu ma leen. ndam yàlla suñu borom moo koy wax. waa jëmm gën yóbbu ma leen waa Fass Mbaw waa ma na leer. li ma la mën a xamoon mooy. dama ko ëpp doole ëpp ko fit daag ko bëre. ëpp ko gàllank ko fépp. waaw ëpp lépp su dégg la benn kàddu. une dame bu ma ko jaabee day bu ñu amoon scanner bu nga xamante ni bu bu bu ñu amoon scanner bu nga xamante ni day génne fitu góor yàlla. parce que Serigne Ba moomu la ay parolam lay làqatoo man du ma yow doo man bamb nag suñu borom moo natt mu bëre mais li ma la mën a xamal mooy ak sëriñ bambaam nga komba seera faal xam man pare naa bu doon ma sëgg bëre gars yi ñu ñu ngi wu incha allah les jours yi waa ginnaaw raay pare nañ koñ manko pare nañ président manko ngi nee di fay bul war yi moom sama combat ba ñu si dara may woo ñëpp dama doon jaaxal sax parce que dafa ñëw wax ak man voilà ok monsieur Wouda Kodo su ma naat sama gars yi maa ngi ziar di ñaan yàlla suñu borom defaat jàmm may woo ñëpp ñëpp ñëpp ñu ñëw jàppale ñu ñu daan Kalma Ndour jël bu set incha allah les di ko di nuyu waa Gilaas waa Ñaaxar xam nga ak bu baax surtout waa Kër Sera Fall bi mu dëkk maa leen di ziar bu baax di leen ñaanal ñu def jàmm waa kaw Sera Fall waa Ndar Fall lu Sera Fall amul bëgg ma waaw may wax parewul dama may ma rek ma wax yóbbante bi yëpp dama koy jox sama grand Abdoulaye Diop sama grand la sama xarit la sama lépp la mu jottali ma ko gars yi yëpp ñu jàpp si ndax xam naa fu mu xam naa fu mu toll si moom di nuyu sama xarit bële sama doomu ndey sama lépp Kër Massar sama xarit ñoom les yëpp dama koy tudd kii maa moom làmb ji boole wuñu bu muy bëre. na na lay wax rek ko foofu foofu foofu sa waay nekku naa ko bu muy bëre. boobu dugguma si làmb si la ñuy yàlla ñu boole ba tey jii jabaram maa yaayam ak sama papa boobu ndey ak baay jabaram sama in la kon kii làmb boole wuñu kon lii bés bi bu amee dama koy wax jàppale sa wax naa ko foo xamante ne sa waay nekku fa. macha allah mais dama si wax Babou Ndiaye. ak jabaram ministère sama yaay la kooku moo géré sama lépp. maa koy woo si combat bi bu baax. jërëjëf ba open press ba kañ la. open press bi samedi la incha allah rabi Kër Massar tamit sama grand la. di waaye biir Boña yëpp di ñaanal Boña ndam di nuyu Père Dégol. merci ñoom ma kenn waa kër ga yëpp. ñoom Zambala ñoom ordinateur. bàyyi ma kenn maa woo école de Boña yëpp maa waa Pikine. waaw jërëjëf balaa ngay dem Zoro bi. waaw maa fi teewal parrain bi di nuyu ñëpp leen nuyu seen tur ak sa sant si wax ni kontaan nañ bu baax si teewaay bi lii moom wax dëgg yàlla yàlla na yàgg lii làmb rek moo ko mën di nuyu per Max di nuyu sama père wax dëgg yàlla maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp wax dëgg yàlla père Thune ñu ngi koy ziar bu baax di nuyu Babou Ndiaye borom drapeau bi di nuyu ñoom wulli wax dëgg yàlla maa ngi leen di ziar ba Adama Diouf waaw <laughs> maa ngi lay ziar ba moom li ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ wax daal di nuyu tamit Eumeu Sène junior di wax ni waa ju baax la champion bu mag la di wax ni tey di nuyu tamit grand bañik kalmandoor lii làmb rek moo ko mën tey jii bu ñu demee ba combat bi taxaw ñun amuñu lu dul jàppale ñaari mbir yëpp dëgg la nag mbañik sama goro la mais Eumeu Sène Junior tamit nekk na mbër moo xamante ni mbër mu neex a bëgg la parce que wax dëgg naa ko jàppale si combat bi parce que wane na yar wane na teggin tamit bu mayee grand mbañik sens mu nekk loo xamante lu rëy la kon tey dañ ko si encouragé di ko félicité di ko wax ni ko yàlla na ko yàlla defal jàmm di wax ne nag le jour soo koo faral. <laughs> non man làmb laa faral ah, noonu la demee yow borom baax nga ku baax. soo man la faral amul ay soo koo faral man la faral. da lay jëlal bolok rek jàppale la. na leer noonu la demee di nuyu Boucar bu baax sama grand la sama lépp la di nuyu site internet yëpp ñu leen jaar di wax ni combat bi grand boobu Babou Ndiaye bi waa Thiès ñu koy waajal waa Thiès ñu koy waajal.